xam ne exposé nga ko ci <laughs> réalisation yi mu def ci commune bi finalement ba mu yombalal la ñu dugg ci waxtaanu élection législative yi lu ko jiitu élection municipale faluwaatoon nga ah. loolu nga campagne non xam nga euh, ginaar xam nga boroom ginaar moom moom ginaar moom moom nen <laughs> loolu ay wolof la uh-huh. man lu ma def Malicounda lépp président ko moom parce que président mooy sama kilifa moo may jàppale su ma jaxalee ci moom lay dem am na lu bari loo xam ne li commune bi def na ko su fekkoon ne jàppalewu ma ci benn côté du ma ko tal bay def la donc am nañ un bilan réel boo xam ne bii c'est sur les budgets propres mais man jàpp naa ne lépp lu ma man ginnaaw yàlla président moo ma jàppale bu baax ci ma yóbbu forage taaxum ma yóbbu forage mbulem dëkk yooyu tey su ma leen foo na yóbbu ndox est-ce que ndox bi may yóbbu tey ngoogoom ak saas dinaa ko man est-ce que ndox bi may war a yóbbu Fandane château d'eau bi may war a tabax Fandane ko mën mais moo may jàppale ma am forage taaxum am forage bu lem tax ma tal yóbbu ndox Falokh yóbbu ndox Sel Aérodrome yóbbu ko Mbaling Warang ñeeni Pointe de Sarène ba pare tabax ay forage tey Ngogo mooy saas ma defal leen forage euh, euh, fële nu te tuddati Fandane ma defal ko forage donc loolu moo tax maye la lépp président ko moom. ñi gañewul seen élection mbaa mbaa duñ ko mën a yenn président ci mu leen jàppalewul kon ci seen i gox pour ñu def li nga xam ne nii moom ngay lim comme bilan. waaw loo xam ne ci communauté yi la dellu. xam nga président jàppaleem. amul kenn ku ci mucc képp kuy maire Sénégal xam nga ne en terme de fonds de dotation de la décentralisation en terme de fonds d'équipement des collectivités locales li ci président Macky Sall def ak niveau ba mu ko yóbbu musul am Sénégal. alors xëy na niveau bi la mais bon. voilà lu la mu nekk fii du moom. enfin lu non non da koo yokk de manière substantielle au moins. Mhm. multiplier na ko par par dix le montant. te ko ñun auparavant mais ñun ay moyens de

on a un budget d'un milliard boo xam ne bii annuellement on recouvre au moins 70 à 80 pour cent du budget donc loolu.